aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ne ñooy saxoo di ànd ñun ci seen rubrique bii di Touba ma yónni seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll del siwaat na tey ci gaaw bi yamoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett mu dellusiwaat nag ci barab boo xam ne Touba da ko faa yónni woon waaye del waat yónniwaat ko fa kon loolu lay tegtale ne luy ñor Touba la mbokk yi fi ma taxaw mooy mbedd mi jógee kër sëñ Abdou Fatah sëñ Basiirum sëñ loo ci topp alaaji Mouhamadou Lamine Baara moo ci topp miir bi lépp kër sëñ Abdou la bi mu tourné mi ngi romb kër sëñ Modou Mamoun romb kër sëñ Abdou samat jaar kër lu jumaa ji ko waxee amu ci benn boo xam ne oto mën na fee jaar te bokk yi fii ma taxaw nag moo taxaw moo bokk buntu kër El Hadj Mouhamad Baara bokk yi kii de doonoon na fi sëñ Touba doonoon na fi sëñ defal fi Touba lu toll ne lu kenn xamut nu mu toll moo yokkaat yii la mën def séddali xool na ñoo yor wàllu loolu rawatina politique sain rawatina nag niti état yi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu tëli ci seen loxo la nekk lépp lu jëm ci wàllu éclairage public ci seen loxo la nekk lépp lu jëm ci wàllu assainissement ci seen loxo la nekk lépp lu jëm ci ay forage ci seen loxo la nekk buntu kër bi bu tombaay ministre daw na ñëw fi ministre boo xam rek daw na ñëw ci buntu kër bi aajoom fajoo fi président la république sax ñëw na ci buntu kër bi aajoom fajoo fi bokk ñu faye alaaji baara lii buntu këram jombante naag lii nga xam ne mel na nii waaye bu dul jëmee alaaji baara it mbedd mi day voie publique boo xam ne daa sës rëkk ci jumaa ji mbedd mi gis ngeen ko nii gis ngeen ni mu mel lii dafa ñaaw dafa ñaaw ci buntu kër yoo xam ne ñi ko seq ñëpp mën nañoo xëy doon Sëñ Tuubaa mbokk yi nañu bàyyi wàll xel état bi nga xam ne mooy état wu senegal Touba ab ab commune la bu nekk ci biir ab département département bi nekk région ñu bokk ci réew mi di fay suba di fay ay impôt nekk ay électeur wate ku soxla réew mi foofu ñun ko rek nii nga ñuy fayee mbokk yi may wax de wax Touba lu ma la wax rek Touba ma ko wax loo mbokk yi xool leen mbedd mi wet gee dañ koo baaree ki bant ngir lan xam le ne oto mënatu fi jaar mbokk yi sëñ Basiiru mii bu génnee bëgg a fu muy jaar dañuy teggi bant yi sëñ Abdou Fatah bu bëggoon a jaar fii fu muy jaar sëñ Sidim sëñ laat bu génne woon ci buntu soow bi fu muy jaar sëñ Moustapha Alaaji Baara bu génnoon fu muy jaar mbokk yi ñiy jóge marché Ocass fan la ñuy jaar tëli bi moom dañ ko bandonné carrément def ko tëli mbalit tëli mbalit nag moom ku ci mbedd mi rek nga koy fekk tële mbalit ndax mbokk yi lii jaadu na. lii jaadu na ci at mu jot weer waxtu wu bu am CDD bu am CLD bu am CRD bu am ñu ñuy bëgg a rey ak i milliards ci Touba anamu fuñ ko def mbokk yi nañ bàyyi suñ der bi ni yàq rawatina nguur gi nguur gi laay wax de ndax ñooñu ñooñu lu lu mën a xew ak ku nangu ak ku nanguwul rek. jàppal ne président la république boo dëkkee Sénégal moo la yilif président bii ndegam fi nga am carte d'identité nationalité sénégalais nga président bi moo la yilif la ci sa wàllu président bi la war ndax sunu alal la dëkk bii di Touba nag mbedd yi yàqu na amul mbedd mbedd mu ma leen wan rek te tam baax rawatina nag mbedd mii nga xamante ni barki Demba Ndiaye ñi ngi koy dagu ñoom ñëpp sukk ci kanamam di ko jébbal ay tëli mu di ko séddale ci quartier Sëñ Touba tey jii ñu mu mel ni lii de ñaaw na ci nguur gi. ñaaw na ci ñi nga xam ne ñoo yor lu wàllu jën ñu man Ageroute ak waa ONAS waxtu wu ne am lay jën baaraamu tuuma ndax yor tali yi mbokk yi lii nag bu fekkente ne bi état mënu ci dara nañ ay tractopelle am nañ ay euh, caterpillar am nañ ay camion xam nañ fi ni jaayee suuf si am nañ ay ingénieur ak ay entrepreneur nañ ñu bàyyi ñu tëlil ko suñu bopp bopp ndax laajoon nañ ko te am nañ xaalis bu ko mën a tëli buñ ko mënta tëlit ñu paawe ko waaye lii daal gàllankoor ñi ko war a defar ba noppi yéen ñi ko war a defar defarul leen ko ay nax rek la moo tax nag ñu ngi sant bu baax baax di santaat Serigne Touba moom mi nga xam ne jox nañu jom ba noppi jox ñu yitte ba noppi nag jox ñu bëgg suñ bopp ba nga xam ne ñi nga xam ne ñu ñaar téeméer di ko def ci nooru daa reen jafe-jafe yu mel nii rek tax waaye bokk yi lii kuñ ko toppal buntu kër sëñ Abdou Fatah taa sëñ Basum sëñ Fall muru kër ala mi nekkoon mi njëkk wuutu sëriñ Touba ci sëtam yi jóge fi tournée jëm jëmaat jumaa ja bu nit ñuy julli ji aju fi jaar wax naa la fii kër sëñ Abdou Samane ngay romb moom moom sëñ Touba kër soxna Mayum sëñ Touba romb kër Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke bokk yi tëri bi amul fooy kàdde bu ñu suñ bokk yi kon yàqu-yàqoo ngi nii boo xamante ne bi tuuti ci yoon naa ko wan nit ak seen bët yónni woon na fi waaye ñor gu ko ñor wax ma naa wana kon nag li mu nekkoon seen rubrique samedi le 28 octobre 2023 seen bokk taalibe Fallou Galassé la Touba yónni waat ko ci muy laaj nag ba kañ Touba moo koy laaj ba kañ kañ la ñuy jóg ci nax yi moo tax Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi dooli wéram nee leen tëlu ma leen woon démb rawatina tey jii ñi jëruñoo talde moo tëj ay buntam ne képp politique ma teggi nag ñun ñun ay sénégalais lañ waa Touba tënkil nañu suñu jéng nee na néewuma kenn demal wateel diw demal wateel diw kenn ku nekk fa la neex aw fa waaye ñoom ñiy wut réew mi daal na ma ñëpp may maa tëj ci sama diggante ak borom kon nag bokk yi jëli leen seen carte électeur ca préparé seen bopp te téye ko ba bu leen ko tegati ci loxoy koo xamante ni bu dikkee nii lay bàyyi mbel Tuubaa yu mel ñi seen bokk taalibe bi daf Fallou Galass woon ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thank you.